jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si le mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak tiraanga ak poche def dara niñ koy baaxu ji defee fajaru samedi mooy ànd ak yéen ci rixlatun ila daaril axira rixlatun ila daaril axira di jataay yoo xam ne mi ngi tudd tukki bu jëm ëllëg sunu borom yóbbal nu nanu yaayu lu si na amanu ittaqullaha xaqa tuqaati wala tamuutunna illa wa antum muslimun ma ko wax Ali Imran yaayu si na amunu yéen ñi gëm ne yéen a ci tukki bi yéen ñi gëm ne yéen ci tukki bi te gis ñu tukki tukki ba ànd nit ba mu yàgg mu wéradi ba mu yàgg mu dem hôpital ba mu yàgg ba mu yàgg ngeen ànd def ci kees dem ba ci barab gas barab ba ba mu xóot def ca kooka ñibbi ca kër ga yéen ñi gëm loolu fekke ko fekkeeti ko ittaqullaha waajal leen bés boobu nuñ koy waajale ragal yàlla luy ragal yàlla mooy jëfi ay ndigalam bàyyi ay mu ni ngeen ragal ko nag xaqa tuqaatihi dëggi dëggi ragal ko rikk bu leen faatu mukk te fekkul ngeen nekk muslimuuna mbokk tukki boobu rixlatun ila daar al xam naa du nu ko miin mukk waaye léeg-léeg mu jëf ci kër rekk tabarkalla waaw rixlatun ila daar al axira sunu mbokk mi sunu mag ji di sëñ Babacar Touré rahmatullahi alayhi bokk ci ñi nga xam ne tukki boobu dem nañ ci su ngeen seetloo at mi ñu dugg muy deux mille vingt waññi leen ci seeni baaraam mbaa seen kurus li fi bàyyi ko ci sunum réew ci ñoo xam ne buñ leen tuddee pénc mi xam leen ngeen xool li fi corona jëlagum ci sunum réew waaye nga yaatal ko xool Afrique lim fi jëlagum waaye nga yaatal ko xool Europe Amérique asi continent bu ci nekk lim fa jëlagum nga totaliser lim jël lépp mbokk yi loolu lu yéeme la tabaarakallahu lu yéeme la mbokk yi maa ngi tolloon ci rixlatun ila daaril axira xuraful janna wa xusuuruha lañ war a jàng tey muy salon yaag njënd ya waaw salon ya ak njënd ya njënd mooy immeuble yi tey ngeen di gis walla pale yi <clears throat> sunu borom subhaanahu wa dafa dencal aw gaay ay njëndee ki pale foofa dañoo amoon nit ku wéri di xel ca càlle nit ku wéri di xel wolof moo koy tuddee dof ñoom nogay dañ ko daan tooñ waaw léeg-léeg dañ koy tooñ séeri kooko doomu may ab nàngam waaw waaye bu ñu waxee baatu séeri mu daal ree ñu la ah da may ndax rek àdduna sii moom duma fi am jabar loolu la daan wax ndeysaan sama bàjjen amin te daal di jooy bàjjen ne fi jooy waaw bàyyi leen ki ngeen di tooñ ndax wax jooju def daan xóot ci ku dégg waaw daf daan wax ne àdduna sii duma fi am jabar <clears throat> ndax nim mel waaw loolu la daan wax ñu ne ko waaw ëllëg nag mu ne ah, bu nu dekkee kay duma mel nii ma mel su boobaa ko am jabar maa am jabar seet te suma na fi ne këpp ci suuf moo bàjjan amint jooy ko ba sonn loolu mësuñu ko miin wax jooju mukk mosuñu koo miin waaye ñoom nogg yi mosuñoo bàyyi di ko tooñ ñoom nag xay na amuñu woon niveau bi suñu bàjjen ñoom amoon ci wàllu xam li kii wax xoroful jànna da ngay gis ko xam ne kii fii ci àdduna dafa fay luyaas ba xëy génn àdduna ndeysaan dem àlaxira am ca pale ya hmm? waaw waaw gis ku fi dëkkee baraak moo kañe yi ak janax yi ba xëy génn àdduna am ca pale yaag la salon ya waaye gis ko koo xam ne fii fii la amoon ay immeuble fii la amoon ay pale fii la amoon ay salon yoo xam ne buñ la toogloo doo ñemee toog mu dem yom la xëyaam waxuma la baraak <laughs> waxuma la baraag waaye tabarkalla néegu ñax sax amu ko loolu la saar wu ñuy tuddee alwaaqia di jàngale isa waqaati alwaaqia laysa li waqaatiha kaasiba daf caate xaafidatu raafia waaw xaafida ak raafia moo fam xaafida mooy ku ku dëkke woon ay palais ki njëndi dem fële dëkk ca baraag ya raafia mooy ku dëkkoon fii ci ay baraag ki néegi ñax dem foofa dëkk ca pale ya waaw loolu lu am am solo la yàlla nañ ci dëkk te fekk ca sunu mbokk ma Babacar Touré ulaayika ulaika yujzawna alxurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha taxiyatan wa salaama mu nga ca furxaan ba yàllay nettali ibaadu rahmaan seen melo ya ba lim ca fukki melook ñett daf ne ulaayika ñi mel fukki melo yi ak ñett yujzawna al xurfata bi ma sabaru daañ leen daañ leen faye al xurfata waxoon naa ko ci siir bi baatu al li muy firi ci ab baat léeg-léeg ndax xaala yeeg tolluwaay yi bokkut waaye alxurfata mu ngi mel ni ku ne salon ba tax ñu naan salon waxut ulaayika yujzaw na xurfatan kon buñ jot jël waaye bu ne alxurfata mooy salon bi tax ñu naan salon lay ku dem yow yowmal xiyam dugg aljanna allahu akbar waaw alxurfata salon bi tax ñu naan salon ndax nun suñu salon yi néexut déedéet ndax dangay tëdd ba mu yàgg nga jóg toog toog ba mu yàgg nga tëdd yaa ngay toqi bi waaw toog ba mu yàgg nga ne ko fa ñukk dem wuti loo loo am toog ba mu yàgg ñu ne kaay leen añ toog ba mu yàgg nga jël satala gi toog ba mu yàgg ni law dugg la xam nga ne yooyu xurfa neexut moom boo fa demee yëpp du <coughs> du la gaar yii yëpp benn du la ci gaar bi ma sabaru nee na muñ nag moo leen ko may juzawna alxurfata bi ma sabaru muñe leen ko may waaw jamono yi ci sëñ Mbàkke ne ci jikko yu rafet yi <clears throat> muñ ca la bokk jikko yépp muñu ci gën <clears throat> seen sang waaw ginnaaw taqwallahi muñu ci gën mooy seen sang bi ma sabaru nee nañu alxuraan lim tudd muñ tudd ko jeneen jikko déedéet muñ nan ko jàng was wasbir ala ma yaquluna nañ ca tàmbalee ndax ci la yónente ba tàmbalee ba ñu ne ko iqra mu ñëw ca kër ga sàngu ñu ne ko xumil la ca lañ ko waxoon wasbir ala ma mu ñël ay wax dégg nga mu ne waaw lu la waay man di wax fexeel ba mën a muñ wax rek waaw jàngal ñàkk a tontu waaw ndaxte kat léeba ma leen fi léebaloon fàtteegu leen ko waaw mbonaat maag ñaari kanaara ya fàtteegu leen ko waaw daal ko léebalaat incha allah waaw tàngal ceeb ulaayika juzawna al xurfata bi ma sabaru wa yulaqawna fiha taxiyatan wa nee na malaaka di leen gàttandu di sax ñuy dugg aljanna malaaka di leen gàttandu taxiyatan wasalaama di leen nuyu ak di leen dalal di leen nuyu ak di leen dayal jaar ci récep réception yi ndeysaan malaaka yi di leen nuyu taxiyatan wasalaama ak di leen dalal allahu akbar waaw malaaka yi di dalal gaa yi ñëw ngeen waaw yow sàmbar sàngam nga war a dugg numéro sàngam sa caabee ngi nii yow tam ñëw ngeen mu naaw mu ne yow sàmbar sàng euh, pa euh, sàmbar sàngam nga war a dugg waaw sa numéro caabee ngi nii ku dem ëllëg ba jox la sa caabi nga dugg ca pale yooya kon na nga xeeb sunu pale yii de maa la ko xam kon ne da xeeb sunu pale yi mbokk yi rixlatun ila daaril axira yàlla moom wax loolu ci furqaan ayu soixante-quinze moo waxaat ca saba wahum fil xurafaati aaminuun waaw wahum fil xurafaati aaminuun mooy ña yàlla na ca bokk ngeen bokk ca mu ne ñoom ñooy nekk ci ay salon waaye ànd ak sécurité aminuun waaw salon yu am sécurité salon yoo xam ne boo fa nekkee aminuun doo fay courant doo fay ndox doo fay téléphone doo joxe dépense duñ dugg waañ te ñépp a ngay lekk kanaan waaw yàlla mën a ganale hmm? bokk na ca xuraf yooya muy muy dëkkuwaay yu neex yooyu xuurun maqsuuraatun fil xiyaam xuurun maqsuuraatun fil xiyaam alxiyaam xeeti mbaar lay doon xeeti baas lay doon aw xeeti baas neex lool xóorlu inéya ci la ñuy dëkk xóorlu inéya ci la dëkk seen jëkkër ya war ca dëkk ndeysaan moo xaat ci alquran lakin allazina taqaw rabbahum lahum xuraf min fawqiha xuraf mabniya tajri min taxti al anhaar la laa yuxlifu llahu waada wala almiaad ngeen baal ma ca yàlla nee ñi nga xam ne ñoo ko ragal di jëfe ay ndigalam tey bàyyi ay tereem ah ñooñu dañu am xurafun dañu am ay ay dëkkuwaay ay néeg ay salon min fawqiha xuraf am salon yooyu salon yu ko féete kaw R plus un R plus deux R plus trois xurafum min fawqiha xuraf hmm? mabniya bu ñu tabax ba noppi architecte bi koy def nag bokkut ak sunu yos yii déedéet architecte bi koy def bokkut ak sunu yos yii bii da koy def mabniya tajri min taatiha al anhaar dex yaa ngi ci suuf dex yaa ngi ci suuf tajri min taatiha al anhaar dugal nañu tiwoy soow yaag tiwoy lem yaag yu sàngara yaag xeeti tiwo yooyu xeeti tiwo yooyu nga xam ne ñoom lañu dugal xurafun min fawqiha xuraf mabniya tajri min tahtiha al anhaar waadallah lii yàlla ko dig ña ko ragal laa yuxlifu llaahu l miiaad yàlla du fausser lum dige maanaam yàlla du la dig nga ñëw ne jox ma mu ne la xaar la quinze loolu fekku ca yàlla du ko def mukk jalla jalaalu abdullah ibn amr toxal na ci yonente ba sallallahu alayhi wa mu ne aljanna dafa am ay néeg néeg yoo xam ne ki ne ci bitti ki ci bitti day gis la ca biir ki ci biir day gis la ca bitti waaw yura zaahiruha min baatiniha wa baatiniha min zaahiriha hmm? waaw waaw léegi nag jamono mi ngi ñu koy firil jamono mi ngi ñuy firil loolu yonent bi junj boo amee oto boo xam bii veer yi dañ koo tente yow mi ci biir ki ci biti du la gis waaye yow mi ci biir mën ngaa gis ki ci biti loolu ay verre ñu ngi ko koy tàmbalee mën a def ba demee léegi sax nit ñi bureau yi ci ñi nga xam ne tabarkalla xaw nañu ligg si la tuuti day am verre ay verre rek la waaye ki ne ci biir ki ci biti du ko gis te moom mi ci biir day gis ki ci biti waaw loolu am na ca aljanna defar nañ ko ba noppi di xaar rekk woy dëkk ya yàlla ca bokk ngeen bokk ci waaw abu malik al ashari mu ne yonente ba alayhi salaatu salaam ñu ne ko ku moom yooyu néeg néeg yoo xam ku ne ci biir di gis ki ci biti te ki ci biti du gis ki ci biir ko moom nekk alayhi salaatu salaam ne leen addaha allahu taala liman at'ama ta'am wa alaana alkalaam wa taabaa siyaam wa salla billeyli wannaasu niyaam akbar hmm? loolu la abu malik al ashari laaj laajaaleel nu ko nun ñépp daf ne ko néeg yooyu nga xam ne dañoo tegaloo te biir géeg bitti gi bokkut ki ci bitti du gis ki ci biir te ki ci biir day gis ki ci bitti mu yooyu néeg moom ñu ko moom ñan ñoo ko moom mbokk yi soxna sala jëlal sa bindukaay yaag soxna nday fàttu jàll yéen ñuy note ñan ñoo moom néeg yooyu liman ataama taam bankal sa baaraam mooy ko tabe ciw ñam ko tabe ci lekk liman ataama taam ko tabe ci lekk ndeysaan mel ni yaayu du tabe ciw ñam ah, waaw waaw aw ñam ñépp tabewuñ ci ndax dañoo defe na lu doy moo tax siis lañ koy tuddee ku siis ko xam ne aw ñamam kenn du ko ñam wala ko ca ñam mu xas la ku xaaraan si dana la wax loolu bu subaa doo ñëw waaw kii nag moom dafa dafa sawar ci joxe aw ñam xam naa waa ndar <laughs> waa ndar addis moom dana leen dana leen dana leen arrangé lool waa ndar jigéen noonu ndar ñoom ñoom soda ñoom soda juuf yal na yàlla sàmm leen seetet jigéenu ndar ak boo jéeg jéegee tuuti jëm waalo nga xam ne dangay ñëw <laughs> ñu nekk papa kaay añ bi ngay añ am na ko taal lëwal man daal mësumaa gis loolu boo raxasoo rek ñu jox la lëwal seetet <laughs> waa cago waaw dëkk yëlla cëri saa tool ndeysaan ca waalo lu am solo la ndekete joxe aw ñam day taxaw am ci néeg yooya hmm? waaw waaw yàlla na ca yaayu doxandéem am waay seetit ak mën a joxe aw ñam bu xëyee rekk dugg ca marché ba bu duggee ba noppi ñëw togg fu mu ko jëmee hôpital ñu ngi koy jox doxandéem ya ñan ñooy doxandéem yi ci hôpital mooy malade bu ñëw ca kër docteur te say bokk yëguñu la ndeysaan maire ba mujj na euh, personnel bi sax ci añam boobu la ñuy añ waaw ndax moom ab ceebam benn affaire la <laughs> eh, ndeysaan àdduna mbokk yi maa ngi ci rixlatun ila daaril axira maa ngi ci tomb bu tudd xuraful janna wa xusuuruha néegi aljanna ya ak pale maa ngi tollu ci alayhi salaam nee na néeg yooyee néeg yooyee pale yooyee waaw immeuble yooyee ku ne ci bitti da ngay ka ca biir ku ne ci biir da ngay séen ka ca bitti abu malik al ashari laaj ko ne ko waaw yooyu néeg moom ku moom mu ne liman at'ama ta'am ku joxe aw ñam bankal sa baaram wa alaana al kalaam tey nooyali waxam wa alaana al kalaam te nooyali waxam ay waxam ñépp ñeme ko wa alaana al kalaam mu nooyali waxam kera ba yàlla yónnee Moussa ca Firawna daf ne ko bandi la Moussa ne ko man maa mëneeg bandi mu ne ko déet kilifa la fa xuulaa lahu xawlan layyina na wax ja nooy muy ñaar de joxewu ñam nooyal say kàddu bu ñetteel bi wa taaba siyaam te bëri lu muy woor ñett ñenteel ba wa salla bi leyli wa naasu niyaam mu mën a naafi bu nit ñi nelaw mu mën ne ñu xor ko seet nekk ca la muy nekk waaw hadisu abu muusa al ashari mu ne inna lil mu'mini fil janna la xayma min lu'lu waaxida mujawwafa bi tuuliha wala tuuluha situuna mayla lil mu'mini fiha ahluun yatuufu alayhim al mu'min fala yara baaduhum baada loolu itam ci yu neex yàlla bokk mbokk yi beneen bindaw noonu ci rixlatun ila daaril axira nuñ koy defee bu nu duggee ci weer indi ci bind bu bees baamtu ko baamtuwaat ko jërë ngeen jëf ci ànd bi ci defem seen rajo ak seen for yëkkate jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax yor seen i këyit bëgg la na firiñ fànc la xibaar ci tubaab firiñ fànc noonu ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak sponsor bii c'est 3S yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.